Euh, sénégalais donc africain ñi ñëpp leen di ñaanal jamm donc ñi nga xamné euh way euh, euh, di leen ñaanal di leen ñaanal jamm di ko sàkku ci yeen donc di leen ziar di leen jox sen seen wàccuwaay di wax né merci jërëjëf ci teewaay bi euh donc di rafetlu sen teewaay ak sen taxaway quoi. voilà voilà voilà donc euh, di dellu si rek comme niñ koy faral di ko def xam nga euh, dawal benn waxtu wala ñaari waxtu wala benn waxtu ak genn wala ñuy xool actualité bi nga leen ñu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di ñaanal jàmm malade yi nekk ci hôpitaux yi ak ñi nekk ci kër ñi.

Euh, voilà euh, li nga euh, vraiment diaspora bi nañu xolat sen bopp xolat sen taxway parce que tamit lañ doon donc ñi bok ci daar yaay daayira ak tout ça la ñom ñëpp ñu ngi leen di massaw di massaw détenu politique yi nga xamni ne ngi ci kasso yi presque 1800 et quelques personnes ñu ngi tëdd ci kasso yi ci yaama neex jaay doole euh ci acharnement ak yooyu yëpp mais li ko waral lépp mo lool yëpp li ko waral moy dara <laughs> lu dul ragal rek mhm. oui lu dul ragal rek euh, donc euh, euh ma wax rek la quoi euh, di leen wax ne euh, le combat continue euh, di ñëw rek di démarrer suñu waxtan gis ngeen titre bi euh ay Aïdara oui ça va euh xam ngeen li yépp acharnement bi yépp ngeen gis ñu teg ko Sénégalais yi jaay doole ba ak injustice bi dara waralu ko lu dul. Euh, ressources naturelles yi nga xam ne moo feeñ te Macky Sall war a dem bako fii te ay patron am ne ko doo dem da ngay toog fii parce que boo demee rek ressources yi euh, dina ñàng surtout bu ko patriote ci jëlee réew mi rek dina métti ci ñun France wala ak Union européenne euh, may am information di len wax wax len ni Macky Sall jox signé na gaz bi be pare Macky Sall signé na gaz bi ba pare teug nañ lu ñu tëgg ba pare khatim ko ak France ak Union européenne Macky voilà gaz bi Macky Sall signé na ko be pare voilà donc ak France ak Union européenne loolu moo tax Macky mu ngi wut contour naka lay def pour toogaat fii il faut que sénégalais ñu xam ko ñu comprendre ko maa ngi leen di wax ni Macky Sall troisième mandat Macky mu ngi ci loolu ci tànk boobu lay dox lu tax muy dox ci tànk bi parce que dafa joxe de joxe na pétrole bi joxe na gaz bi signé na ko pare te gazoduc bi gazoduc bu mu signé gazoduc bi pour ñu commencé ko liggéey gazoduc bi euh, day démarrer Dakar. jaar Mauritanie Mauritanie Maroc Maroc mu dugg Espagne dem parce que Abdel na beneen boo xam ne Algérie lañ ci mais Algérie dañ ko mujjee trajectoire bi Dakar la Mauritanie Maroc mu dugg Espagne dem gaz bi waaw teg nañ ko parce que Union européenne. lañu le manque à gaje ba am ci gaz bi te nga xam ne Poutine moo leen ci kepp ñu ngi ko fas yéene teg loxo ci Sénégal te ñoom xam na nañu ni pour ñoom Macky Sall moo leen arrangé keneen arrangé wu leen donc troisième mandat bi ma wax nii français ñoo nekk ci ginnaaw Union européenne topp ci ginnaaw Paris France moo tax lépp li nga gis nii ñoom ñu ngi def kéemtulaay kattan pour patriote bu ñu teg loxo ci euh, euh, ci réew mi mais ñoom ak seeni bëgg-bëgg yàlla ak dogalam alors donc ceci dit que xeex bi bu ñu jógulee xeex bu ñu taxawlee xeex ressources si nekk Sénégal du njëriñ Sénégalais yi day mel ni or bi rek or Sabodala bi ci Abdou Diouf ñu ngi koy exploité di ko ŋàcce di rawale di dem ba Abdou Diouf jóge fi ñu ngi koy rawale ba Abdoulaye jóge fi Macky Sall ñoo ñu ngi koy rawale gaz bi fa jëm ak pétrole bi ak zircon bi pour Sénégalais yi nga xam ne ñu ngi toog. ba ñu jóg xeex soo gisee rey yooyu yëpp assassinat yi ak rey yi métti yëpp injustice bi yëpp ressource naturelle bi la parce que Macky pour mu dem mu bàyyi ko fii ak ñu def ci liggéey bu salte bu ñaaw moom ak rakam ak dossier yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw ak crime nekk ci ginnaaw ma ne leen Macky moom mooy candidat APR mooy benn bokk yaakaar ñoom amuñu beneen candidat te Macky Sall pour ŋaang wax ni gars yi day def ñetteel manda ñemew ko mu ngi ne teg parce que bu ko waxee moom dina xam lu ko ci fekk waaye dañ dem ba cappaandaw ga dana forcé te Ismaïla Madior Fall mooy nekk porte parole ci loolu parce mais au moment où je vous parle nous un candidat Ben, deuxièmement wa de nous pousser l'élection. Il y a dana ko pousser mu toog moo xam ñaari at ñetti at tout dépend du Sénégalais 1800 mille huit oui ok merci 21 heures oui merci

fi mu ne nii ñi nekk ci kaso yi non Macky Sall bu ñu jógulee xeex libéré leen Macky Sall du leen libéré tant moom Macky Sall xamul taxawaayam fan la fan fan lay taxaw parce que ba léegi wóolul kenn ci ñoom ñi ko wër wóolul kenn wóolul kenn ci ñi ko wër pour sénégalais moo ñi doon jibilé nan way way du def 3 troisième mandat non yéen da ngeen xamul Macky Sall nee naa Macky Sall man dama ko yàgg top di ko suivre ba mu démé di voter sans carte d'identité laa bàyyi xel ci mom en tant que jawri ministre ministre ministre kilifa ministre nga dem voter sans carte d'identité ci la baye xel Macky Sall di ko suivre ci bir muy nak nu muy échelonné euh, ci bir PDS naka la demee Ablaye ni beseen jaxso bi ba nu duuloo ba nu mu dugalee Idrissa Seck dama leen ne Macky Sall la ñu préparé mu ngi ci tànku troisième manda te ñoom ci seen biir bennoo benn bokk yàq wala euh, euh, APR Diouf Sarr ba mu posé candidat am dañ ko jëndal audit tegal ko mu dóor waaf mu mu dóor waaf dellu gannaaw Dengen beno, ñi naan ko way yo lañu wolu wóolu ñu ngi lay yo stratégie de communication donc sénégalais nañu nañuy xam bu baax fan lañ jëm parce que euh, accalmie bi ñuy accalmie ni ni baaxul baaxul ci sénégalais ci réew baaxul sénégalais yi baaxul parce que nee naa Macky Sall déjà tracé nañu gaz du gaz bi fu mu war jaar Dakar Mauritanie Maroc Espagne mu dugg gaz bi France ngi ci ginnaaw union union européenne ngi ci ginnaaw tey ñu bëri ñuy tëj tension bi ñi tëj ak gaay yeb tout ça rek français ñi ngi ci ginnaaw ñoom la tout bi français la tey c'est même armée Sénégal ne pat toog di ça. français la tubaab bi fii lenn rek moo sauver Sénégal Moi sénégalais ñun du Sénégal rek ñoo mën retirer le Sénégal mais du armée Sénégal du politicien Donc mon bu yëboo mon ñi xam ko du armée Sénégal du policier nous ñun askan bi oui waay Wa ma wa mais ma jël boobu rek rek waaw waaw baax na baax na donc euh, après da may wax rek fan laa koy jëlee rek ah waaw fan laa koy jëlee fan laa koy jëlee fan fan waaw bindal ma ko quoi bindal ma ko nga ma ko quoi waaw defe naa foofu sorewul quoi. Okay. Okay. Uh, uh, ligne 6 bi mooy lan Moy ban mooy mooy lan mooy train bi métro bi bindal ligne 6 bi rek bindal lépp ci biir. Uh, li ma yor yor naa deux ah bon am nombre de kilos ah, man non man ñaar laa yoroon ah, ak euh, waaw vérifier yooyu bu nga xoolal parce que ñaar laa ko ak euh, euh, port document ak beneen bi nga xam ne sac à dos yi ñoo fa nekk beneen bi documentaire yi sama dossier yi ñoo fa nekk ko ah waaw xoolal train waaw te bu normal bi quoi TGV bu normal bi rek ba jël ko ko mo gën quoi TGV bu normal bi rek jël ko rek comme quoi hmm. ok voilà hmm? donc foofu la ñu toll fi situation bi ñu toll nii loolu euh, actuellement le seul candidat boo xam ne moo déstabiliser le ba mën retirer Sénégal mooy Ousmane moo tax fu makisal Sall même bu doon yàlla day wàcc sax ñaan ko day bañ xam nga lan ma ko fi mën a jëndee épreuve de force moo mën a jëndee Sénégal ci guddi gi waaw mais loolu dafa war a ànd ak planification bu dëgër. bu dëgër parce que tey même ñoom ñi nga xam ne ñoo doon comme ni ma leen ko waxee ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ak ak ñun ñëpp tey ñëpp dem nañu donc ñiy toog di xeex xeex bi tey mooy ñun ñi nga xam ne ñoo am éthique ñoo gëm projet bi gëm xeex bi.

moo fi mën a rëccal Sénégal parce que Sénégal fu mu ne français yi dañ ci teg seen stratégie ba pare tubaab ma ne ma ne leen tubaab bi teg nañ seen seen seen kii ba ci Sénégal teg nañ seen bakkan teg nañ seen lépp parce que ñoom Sénégal pour mu rëcc leen non dina métti te ñun fu mu ne nii dañu bëgg dog moomu njaam bi il faut que ñu mën a décider euh, c'est malheureux euh, armée moo waroon taxaw taxawaay gor mais armée bi ñoom ñëpp. Qui waaw waaw France le ñuy wéy armée Sénégal bi ci waaw France ci la ñuy parce que français ñoom gëmuñu di Sénégal coup d'état mën fa am mais coup d'état mën am Sénégal Sénégal mo gën yomb coup d'état barke Nabil Moustapha Dakar ben sortie la ben buntu la Dakar ben buntu la kenn bu ma wax sature armée niñ ko généraux ni ñu leen tegee wéy kenn mënu def coup d'état c'est pas vrai c'est pas vrai préparation la laaj rek ñom ñi ñi nga xamné ku sëxat ñi téé ku commentaire ñi téé ku poste ñu téye loolu yépp lu waral si yépp mooy ñoom dañuy ragal nit ku ragal comportement boobu nit ku ragal moo am comportement bu mel noonu boo sa mu téye la ñu kenn wolu kenn kenn kenn loolu ku ragal la ñoom xam nañu fu ci loolu ci la dox mais ñu du kenn mooy ñëw ñun ñoo mun a ñëw Sénégal sénégalais ñoo mën a jóg taxaw ñu xeex xeex bi waaw te ñi bàyyi débat yi ci TikTok yi parce que l'heure est grave il s'agit de l'avenir du Sénégal suñu pétrole la dàq France fële Niger loolu moo war a France Sénégal mu jóge fii tubaab bi parce que gis euh, vidéo bi ma leen doon woon fii français nu ñu jaaree Bénin dugal ay ay rebelle Niger mais ñooñu ñëpp dañ leen massacrer Mali ak Burkina non dañ leen defal bagage dañ leen massacrer ñom fa ñu dem jonkoon toog foofu gaare seen moto jonkoon di fa lañ leen fëgg missile fa lañ leen fëgg fëgg yi té ñom ñoom teggewuñu français parce que ñom ci biir ñi ngi xool ci biir armée bi naka lañu défé defee coup d'état pour koku bu toogee bu génnee général bi fi Niger koku mëna dawal transition ñom le temps que ñom France ñu kenen keneen ku ñuy préparé ku ñuy teg ci euh, euh, euh Niger pour ñom ñu continuer di exploiter uranium bi fofu la motax euh Niger il faut ñu def attention il faut que euh, euh, le pouvoir actuel du Niger là, fasse attention. Je le répète encore, hier je l'ai dit. Parce qu'ils sont en train de voir au sein de l'armée ceux qui ne sont pas avec le pouvoir actuel de pouvoir faire organiser un autre coup d'État entre eux pour prendre, même scénario que le Burkina, pour prendre le pouvoir. Et ça, c'est la France le deuxième coup d'État qui, qui, va, qui va se dire au sein de l'armée là, ça c'est la France qui est, qui est derrière et c'est pour permettre de dégager l'équipe qui est là, qui a fait le coup d'État à Bazoum, ok, et prendre le pouvoir par, par insurrection, par infiltration, prendre le pouvoir par insurrection. Et après, après euh, euh, un an de transition, ou bien deux ans, les gars organise des élections et que ça va permettre à la France de préparer son poulet. Et la France revient au commande Mais actuellement, la rupture, elle est profonde parce que tout simplement, ils sont en train de dégager l'ambassade et on leur a donné un ultimatum pour qu'ils quittent. Et par ça, euh, euh, Barbosa, je ne veux pas ce que tu fais là, je n'aime pas ça ici. Alors, euh, un message, tu ne peux pas le poster mille fois. Bon, il faut que tu dégages sur le plateau parce que j'aime pas ça. Voilà. C'est tout. Il ne faut pas inonder le plateau là. Prendre tout le plateau. Euh, euh, donc, alors, tu dégages quoi. Tu postes une seule fois et puis c'est fini. Maximum deux fois, ça suffit. Mais il ne faut pas inonder le plateau avec le même message là. Voilà. Je ne suis pas là pour ça. OK Donc, c'est le même scénario. Et Sénégal, c'est à nous de s'organiser et d'arrêter le débat dans les TikTok là. Organisons-nous, trouvons les moyens, les solutions pour sauver proche, mais permettre à Macky Sall de partir, de ne pas rester à la tête du pays. C'est ça l'objectif, parce que Macky Sall n'est pas prêt à partir. Hein. Il est parti, mais il est là. le gazéduc, je, je l'ai dit, le gazéduc sénégalais là. Mais Macky Sall a tout signé. Tout, il a tout signé maintenant. Ils vont essayer d'imposer Macky Sall. Ils ne respectent pas la démocratie. Même la France ne respecte plus rien. Parce que euh, ils sont en sursis. Ils n'ont pas... Euh, sinon, les Français vont mourir de froid. Alors, et l'Union européenne, il faut coûte que coûte trouver du gaz et c'est le gaz du Sénégal. Le gazoduc là, va la trajectoire du gazoduc passera par le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, l'Espagne, hop, l'Europe. L'Espagne et puis ça continue à rentrer. Est-ce qu'on peut... Alors, pour empêcher tout ça, là, il va falloir qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise. Oui. S'organiser en, stratégie, s'organiser en communication. Et faire tout dans le silence. Il faut coder les messages là. C'est la seule, solution. Parce que tous ceux qui sont arrêtés là, donc, tant que Macky Sall n'a pas encore maîtrisé la situation, il ne va pas les libérer. Alors, pour, les, que ces gens sortent de prison, et c'est au Sénégalais, c'est à la jeunesse de se, de se débrouiller pour ça. Parce que si on ne le fait pas, euh, bon c'est fini. Oui, allô Allô, allô. Oui, tu as un bruit là. Est-ce que nous avons un ça qui vit D'accord, ça va Oui, tu as dit radio bobo, c'est le tour. Oui, voilà. Ça va Ça va, ça va. Mm, Mais ñëw a ah. un ñëw mm, ñëw bruit bruit non radio bruit ma télé la lan. voilà ok. Uh-huh. waaw xam nga gis nga gis nga Sonko il a été piégé par les Français. oui. parce que xam nga tax gis nga interview boobu boobu mu def noonu. boobu mu def noonu oui français yi. Uh-huh. waaw bu mu def bu mu defoon noonu ba am ci un million de vues xooma ak lu tegal. waaw. après mu réflexion laa xam ne le gars a été piégé gis nga les Français ils ne lâcheront pas le Sénégal Sénégal rek moo leen des ak Côte d'Ivoire. Uh-huh que boo seetee interview buñ ko doon def noonu il faisait semblant que ñoom ñoom léegi leen dañ ko laajte xalaatam quoi affaire yooyu noonu après mu wax léegi léegi dañuy def semblant comme si ñoom dañoo dégager seen i en quelque sorte seen responsabilité ànd ci mu Macky dugg na fii génn na fii mais Macky on normalement heure bii nii man je me rappelle au temps de PS j'étais encore gamé mais je me rappelle heure bi Abdou Diouf daraan fekk def na révision kii révision exceptionnelle buñ commencé di wax naan nit ñi dañ dem bindi bindu ji. oui oui. mais on est à cinq mois des élections ba léegi nit ñi religion eh, révision sax élection eh, liste électorale yi defuñu ko dañ daan wax naan ku ci am 18 ans na nga dem nga inscrit sur les listes électorales comme ce qui veut dire les Sénégalais sont en train de dormir Macky Sall est en train d'endormir ah, les Sénégalais te pourtant ndeysaan suñu politiciens ñoom ay dof lañ ñenn ñi ay kàttat lañ Macky Sall jël na seen fit ñun ci ndaw li ci fekkoon fi di fi góorgóorlu ci ci tuuti jël na ñëpp door na ci kaso bi Macky Sall nit ki fekkente ne Macky Sall il est prêt à laisser ce pouvoir là à cinq mois des élections ñu jàpp nit ñi ku sëkkat ñu tëj bracelet sax moo ko takkee ñu tëj da ce que veut dire que ne waa ji il n'est pas encore prêt à lâcher man damay waxtaan fii ak sama morom mi fii nii gars yi dinaa mën noo Macky du présenté wu ma ne Macky Sall man ay waxam du jaroon na mu dóor sama doom Macky Sall moom mooy candidat APR ak benn bokk yaakaar ñoom amuñu candidat. mooy. moom la de xool la mooy candidat. dernière minute lay ñëw teg. gis nga xool Macky Sall day bett Sénégal gis nga li Alassane Dramane Ouattara def en Côte d'Ivoire Macky Sall lay def te gis nga su su boobaa Sénégalais balaa ñoo jóg ce sera trop tard. gis nga Macky Sall su ko man man man ne xaw ma kat de mais man man man de nature man musuma am ci moom confiance te je n'aurais jamais confiance en ce gars man mooy li ma doon expliqué temps passé naa man man école bi ma doon jàngale man sama directrice ak sama collègue dama daan xulóog ñoom ci affaire Macky Sall naa ma dama bañ Macky Sall ma ne man ce gars là man il pas confiance te man trompé wu ma ci moom. Mm-hmm. man yàlla dafa def leen moom musa dugg sama biir xol bi. non oh. xam naa du ci dugg du ci dugg ba abadan parce que man le gars dama ko xool rek. man na ma yàlla bal man neexuma ma il ne m'a jamais plu te il ne plaira jamais. c'est un faux type. gis nga gis gis nga Sénégal yi il faut mooy lim lay leen wax chaque jour rek dama naan gis nga waxuma la pétrole mais non seulement suñu àll yi rek tey ñu waruñu woon jooy xiif. déedéet. yow yow yow yow vous êtes de Ziguinchor mais xoolal waxuma la ressource naturelle de mais xoolal àll bi nekk Ziguinchor la fa nekk. Mm-hmm. xoolal la nekk Thiès yi la nekk ci yeneen région loolu rek mën nañoo mën nañoo dundal waxatuma ak suñu ressources naturelles ñuy am léegi ñun seen lañ koy kal ñun ci Modou Modou lañ koy kal bu ñu siifee nañu woo benn cent euro benn deux cent euro lañ yaakaar ci Modou Modou yi jërëjëf léegi su ko yëgee ne Modou Modou bu ñu ñëwee banque seen loxo léegi Sénégal yi ñu doot ñu lekkati ku feebar dootul fajooti Modou Modou bu yàggee doot ñu mayati nit ñi dara de. mon frère naa la nga nga continuer sa laaj alors <laughs> que li fi nekk moom kenn mu ko wax ba mu jeex. ok d' accord. non c' est vrai c' est vrai ok allo. allo Mbijan waaye tanate la. tanate jàmm.

Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. d'accord. Mm-hmm. Mm-hmm. Ok. ok. Mm-hmm. quoi. Il faut que. Il faut nous organiser. Parce que nous, nous nous euh, Macky Sall, il sait ce qu'il attend. Macky Sall sait très bien ce qu'il attend. Et ceux qui sont avec Macky Sall, ils savent très bien ce qu'ils attendent, ce qui les attend. Parce qu'ils ne peuvent pas tuer euh, les Sénégalais, commettre des crimes humains, crimes économiques, et sans réduction de compte. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, euh, l'option de Macky Sall, il n'est pas prêt à organiser des élections. Il est toujours dans la dynamique de vouloir installer le chaos pour dire que oui, euh, on ne peut pas organiser des élections parce qu'il n'y a, pas de, a pas de sécurité. Mais malheureusement pour nous, heureusement pour les Sénégalais, nous avons déjoué la stratégie de Macky Mais il est toujours dans cette logique. Dites-moi qui est le candidat de, de, de, de, de et Hein? Qui est le candidat le candidat, c'est Macky Sall. Macky Sall, Donc, la seule chose d'empêcher à la France de mettre sa main dans sur nos ressources, c'est de dégager Macky Sall. Il faut bloquer Macky Sall parce que c'est... Euh, euh, il faut le bloquer parce que tout simplement, euh, <clears throat> il n'a pas droit à un troisième mandat. Et si nous laissons ces gens-là à la tête de ce pays-là, non, c'est le chaos, c'est parti. Tous les ressources seront saccagées, lapidées. Mais il a tout signé. Lui, il a tout donné. Et c'est gaz de sécurité. Hein. Parce que l'on le monde de Pour pour le monde côté, mun ko samp pour moom mu meuna a am troisième mandat lenn rek mo ko mën ñu mën tax ñu euh, déterminer ci lolu té malheureusement opposition bi gisuñu li nekk di ñew bilaay parce que d'autant plus li nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ñu fa ñu bëre rocceeku nañu dem ak moom ñoom Bart ñoom xalifa ak yooyu consort mais yeewi askan bi ñi fa nekk ak ñëw ñooyu gisuñu gisuñu li Macky Sall di taxaw de ñi ngi renier Antoine Diome mais est-ce que yéen xam ngeen ni Macky wax ma la ne lay organiser élection keneen ba keneen mu wut plein mu teg ko fii déedéet moom mi ci boppam seen problème bi loolu la fii moo tax na ñëpp pare na Sénégal yëpp pare ñi bañ a xeex di ngeen xeex wala di ñi xeex waaw parce que moom xam na xel ni su waxoon moom candidat la heure yi Sénégal boy na yàgg na. mais dafa dóor waaf mu bàyyi mu jël beneen yoon ci biir yoon boobu nag mu ne xaaral léegi ma fexeel Ousmane jéem a écarter Ousmane éliminer ko pour mun a bu ma paree ci yoon boobu kenn dum ma am benn gàllankoor euh, gis naa ñi naan notification euh, xaw ma naka l'éligibilité de Ousmane voilà son nom n'est pas dans le fichier dañuy fen dañuy fen képp ku ko fait ay fen Mais mais pas la c'est c'est un état pourri corrompu malhonnête il dit jamais la vérité il est éligible Tout le monde système donc du loolu mooy coow li ñaari point la mooy organiser pour empêcher Macky Sall mu toogaat fii mu jóge fii régime bi jóge fii organiser pour pour Ousmane ñu xool naka lañ koy jëlee foofu jëndee foofu ci hôpital Dantec boobu xamu principal bi ñi am plan bi topo bi nañ ko jëndee quoi il faut même bu dee dañuy taal hôpital bi ñu taal ko quoi mu jóge foofu.

parce que xex bi foofu la jëm ñom ñi seen bop la wër cible ñom seen bop ñom ñom ñep kuñ ci ay Antoine Diom, ay ki kuñ ci jekku nga kuñ ci jekku nga reer té loolu liggéey la la laaj bu raffiné la stratégie dëgg

sen domi wax naa la ñu ngi jàng ñu ngi ci Europe bi fi patriote diaspora bi nañu xool ñoom sen domi yi fan la dëkk fi Europe la parce que dëgg laa doomi Marième Faye dem nañu ko jëne parce que depuis euh, scandale bi am ci doomam bi tuux yambala Ibrahima am nañu ñu ma ne nañu mais tant que teguñu suñu loxo ci sen domi yi ñoom ñoom du ñu reculer mais bés bu ñu Ibrahima wala ñu ne nipp Amadou wala ñu ne nipp doomi doomam bu jigéen tap mu mu mu paré non wala ñom ñu jàppaleen tap waaw non da nga gis fi légui tout de suite données des changé waaw mais kooku liggéey la laaj liggéey bu set du ay liggéey wuyaa wuyaa yi nii kooku il ñu togg ko togg ko la laaj liggéey boobu mm-hmm. Mm-hmm. liggéey la laaj de liggéey bu set wicc nga xam ne buñ koy tëgg du senn fenn ñu dox dox bi seen doom yi ñu ngi jàng Dakar ñi ngi jàng partout seen doom yi ñu ngi Europe di jàng nañ leen liggéey xool rek analyser leen suñu bëggé donné changer fofu lañu jëm ak ñom ah, fofu lañu jëm ak ñom fofu lañu jëm ak ñom buñu bëggé donné changer franchement té ko ko liggéey professionnel la laaj quoi liggéey 7 8 8 8 8 8 sinon su ñu bàyyee ni situation bi Ousmane mi ngi foofu toog détenu yi ñu ngi rëbës te bu ñu fexewoon ba daj yi attaqué rëbës ba toj ko daj ko mu jënd gaay jënd yaa loolu rek moo ñuy arrangé du leneen de parce que ñoom fu mu ne nii li ma leen wax ni yëpp yëpp Macron moo nekk ci ginnaaw du kenn Macron la waaw dafa jot ñi taxaw ah. parce que sinon ku am seen i yi fu ñu nekk en moo xam États-Unis moo xam Canada moo xam fu mu ne diaspora bi xanaa doole ma ne xamu ñii seen doom yi fu ñu nekk wala ñoom seen jabar yi fu ñuy faju wala ñoom bu ñu sonné fu ñu ñëw loolu il faut que il faut nous ci ni jog ci ni jog ci liguey bi liguey bu set waaw bu diaspora il faut ñu nous mhm. suñu xex parce que ñe ñi daw dem dem di magal ñi ngi di waa léegi lan moo war a nekk tontu bi ngeen jàpp ngeen yaakaar tontu bi lan la hmm? il faut ñu wutal tontu moom ay ministre bi ñu dugg si fii Europe fu ñu dugg ñu topp xeex boo gis dafa am organisation te gis nga askan bu déterminé wu lay pour mu gagné combat am day miti nous sommes à cinq mois des élections juróomi weer bon gis pour élection yi amul benn jéego bu Macky Sall teg bu gouvernement am teg pour luy war a jëm concerné élection yi amul ko kay yomb na xam léegi loolu boo ko jàngee rek di nga xam day yomb nga xam lan la Macky Sall hmm? loolu rek. liggéey la ñu am de liggéey bu rëy finition mu métti tabax yow mën na mais finition bi mu métti finition bi lañ nekk nag te finition bi ku ci nekk yaa ngi yaa ngi moytu yaa ngi moytu quoi ñoom ñi ngi teg seen stratégie moo tax ku ne cëpp la ñu ne nuut dugal ne cëpp ñi ne nuut dugal <laughs> na kuy këpp yelawaanam gisu ko wala gisu ko dañu góorgóorlu waay dañu góorgóorlu waaw wala ñu bàyyi Macky mu gouverner senegal quoi def na ñaari mandat jeexal na na dem yoonam quoi organiser élection mu dem yoonam quoi mu bay réew mi ñeneen ñu mais suñu waa ji nekk fële il faut mu jóge foofu mu ne Ousmane foog ñu jënd ko foofu waaw bu doon réew boo xamoon ne ay góor ñoo fi nekkoon armée bi ci boppam ñoo koy fa dee jëli mais nag comme nekkuñu ci réew boo xam ne armée bi ñoom ñëpp. ngi ci ndigalu ñoom ndigalu tubaab bi lañ nekk ñoom hmm? loolu de France moom fu mu ni moom moom xam na ni koto mi ngi wàññeeku quoi li waa ji jë waa ji waxoon fi sànq rek balaa muy ki jëjjën bakalam la ci France teg de ñun xeex bu bëri métti la ñu am xeex il faut ñu xeex xeex métti te il faut ñuy am audace ambassade France bi ñu xeex ba téye ko centre culturel yi ñu téye leen xam nga pour ñu mën a jàkku loolu ci la hmm? wala ko loolu ci la de. ok ben waxtu bi donc euh, ñu am fi ba suba hmm? suba xamna ak sama déplacement yi def direct suba mom duma def direct parce que damay déplacé voilà donc. Euh,